dénk wàllu wér-gu-yaram gi démb dañu doon janoo ak taskatu xabaar yi waaye ministre bi tere na lépp loo xam ne jëm na ci wàllum rassemblement wax na tamit masque yi ñu koy takk ba ci yoon yi sax nañu koy takk lu soxal wàllum transport bi loolee tamit ministre Mansour Faye jël na ci ay dogal yéen a gi nee na Félix Antoine Diome mi ñu dénk kaaraangi réew mi bi muy janoo ak taskatu xabaar yi bi ñu ko laajee lu jëm ci manifestation yi nga xam ne amoon Diom daan nay wax na majorité bi yëpp respecté nañ li nga xam ne mooy couvre-feu bi te loolee moo si am solo benn benn yi dinañu ko lijjanti yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf sara moom nag nee na yenn gox-goxaan yi sax maanaam bu passé Dakaru ak Thiès couvre-feu bi mën na faa yegg ci fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmal sa dépend rek ci coronavirus bi ak ni nga xam ne moom lay lawe ak askan wi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen région yi nan la ñuy respecté mesures barrières yi yéene kaay gi di Les nee na ni ki démb am na ay ndaw yoo xam ne doon nañu manifester ci gox bi di Cambérène ak Grand Yoff ak HLM ak jàmm gën si kàmbaaw manifesté nañ ba seen xol sedd Thiès am na fa ay quartier yoo xam ne ay ndaw génnoon nañu fa ñu si mel ni quartier bu Erzan ak Medina Fall foofee tamit ndaw ñi génnoon nañu yéen a kaay gi nee na autoroute fi nga xam ne moo tollo ak diwaanu Thiaroye foofe ay ndaw démb dañu ko bloqué yéen a kaay gi délibération nee na am na ay ndaw yoo xam ne ñoo doon manifester bërki démb ci diwaanu Medina dix mille problème rappeur bii ci la bokk maanaam teg nañu leen loxo yéen a kaay gi wax ne police bu Mbuur moom tim jàpp na lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay ndaw yoo xam ne ñoo doon manifester Mbour gouverneur bu Thiès moom nag nee na bépp matukaay boo xam ne war nañu koo jël ngir nag askan wi respecté li nga xam ne mooy mesure barrière yi état d'urgence couvre-feu bi danañu ko def te du am lenn loo xam ne danañu ko si yox-yox yéenekaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa professeur Fatou Sow Sarr sociologue bi bi ñu ko laajee na ko ndaw ñi lan moo tax ñenn si ñoom nanguwuñu couvre-feu bi ak rébellion bi nga xam ne moo fi am ak maanaam seen manifestation gi loole nag moom professeur bi dafa xamle ne mer mi ci boppam réew mi te nag njiitu réew mi di Macky Sall see jàngee bare bare bare bare te nag Macky Sall ji am na lenn loo xam ne moo ko war maanaam muy jege ndaw ñi jege leen loolee ci boppam solution la ci yéenekaay gi di Vox Populi ñu xëy jàngee fane ministre de l'intérieur solloo na askanu Sénégal ay masque par force yéenekaay gi di Source A nee na ni ki démb bi ñoo génn ci yenn gox yi nga xam ne moo tàng jër daal di renfort police ak gendarmerie yéenekaay gi na nag nga xam ne mooy couvre-feu bi li tax ñenn ñi ànduñu si da leen a bett la nation bi ko Macky Sall yi def amul benn yoon boo xam ne wax na ci lu jëm ci wàllum état d'urgence wala couvre-feu te nag mbir mi ci boppam askan wi dañu leen a préparé wu la te nag bëri na sénégalais yoo xam ne gëmuñu sax ne woppi coronavirus am na ci réew mi ñenn ñi tamit dañoo njort na état bu Sénégal lay def ngir nag fexe ba indi vaccin yi ci réew mi ñenn ñi tamit njort ne couvre-feu bi amul benn njëriñ ñenn ñi sax ñoo ngi wax ne xanaa virus bi mooma guddi rek lay a kaay ñu xëy moo posé problème maanaam Macky Sall moo amul benn crédibilité ci li nga xam ne moom la ñu yoree coronavirus bi enquête yéen a kaay ñu fekk fa docteur Ismaïla Sène di ab sociologue bi ñu ko laajee ci ndaw yi nga xam ne ñooy fippu la mu xam le nee na ndaw ñi si Sénégal confiance bi nga xam ne moom la ñu amoon ci ñi jiite confiance boobee moo dañe te incohérence la ñu gis ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ndax bu ñu fi jëlee ay dogal tere ko ay ministre la ñuy gis ñoo koy jalgati ñoo koy salfaañe ñooy organiser ay xumbute te nag conséquences yu garaaw a la mën a jur jamono ji nag état bu Sénégal état déglu ndaw ñi ndax ndaw ñii nga xam ne mer nañ ba maara détaali bu leen état bu Sénégal dégluwul catastrophe mën na am yéen kaay gi de Libération ak L'As mu xëy di ñu xamalaan ñu jaari sow mi nga xam ne ñaar yoon nekk na ko élève bi gën xarañ ci réewum Sénégal ñu yóbbu woon ko France mu fay jànge jaari sow moomee moo ne mes ne menteña ñi nga xam ne ñooy ay collègue mënuñu ko gis école ba mu doon jànge gisuñu ko loole nag tax na police bu France ak consulat bu Sénégal bi nekk France te ñoom ñëpp dajaloo nañu ngir nag ubbi si ab enquête ngir xool jaari sow ana fan la